Sidi Lamine moom sama rakk bu baax la ci man tawarkal la bërki démb xuloon naa kenn ku ñëw rek gis benn benn monteur bu ma joxoon monteur ba na mu rafet ci def mu ni ma rek foog nga may ma ko ma ko lànk na ma ni ko gis nga ki ma ko may sama bakkan la ndax maa ko yar Sidi Lamine maa ko yar ca kaw la boo masaan di ñëw ba ma xaleel la dafay yéeg ci kaw garab bi ma séentu yàlla xam na ko